charme émission 28 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 way leen aimé partagé live bi ngir mu gën a mën a yeeg waxtaan bi gën a mën am solo bu fekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Diarra na nga maa ngi fi mbokk mi. Ah, man la Pape maa ngi wootee Amérique. d' accord Pape ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ani waaye Amérique ñëpp a ngi ci jàmm. waaw waaw ñëpp a ngi si jàmm incha allah ñëpp Sénégal moom xam nga rek boo koy déglu moom. Mm-hmm. yàlla baax na mais sa saa tubaab yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla na ko yàlla may fan. amiin yaa rabbi amiin amiin. non billaay dama dama koy déglu damay ree bay jooy quoi. ndeysaan sa sa de nii yàlla yàlla gis nga Sénégal dafa neex quoi. jaaree mm-hmm, mm-hmm. dañ lay yaraare bare di la reetaan loo en même temps mais dëgg dañ bu jotee dañ koy wallaay dëgg la jàmm rek la la xam jàmm rek. non jàmm mhm. jàmm lañ xam de mais man la muy wax ci Youssou Ndour moom Youssou Ndour xam nga li wolof wax weñ bu amul laaf la rek mhm. moom weñ bu amul laaf day xool fu muy jéem a dal fu mu nekk kenn xamul fu mu far man mosumaa gis nit bu mel ni moom daal bi amul laaf la xam na ne nguur bi mi ngi waaj wàcc mi ngi jéem a fu muy dal waaye billaay du dal bu dalee fii ni ñuy dóoree weñ su ñuy tàll carax yi noonu lañ kaa dóoree mhm. moom moom dafa am problème ñu jógee foofu ñu dem ci Ousmane Sonko ah comme te dans l'instant dégguñu dara yàlla baax na comme te xam naa ne mu ngi si jàmm te yàlla yàlla dolli jàmm mais nit ñi bu ñu découragé nañ continuer di kii quoi. Mm-hmm. nañ continuer di xool di xool ci lu mu nekk parce que nit boo xam ne bu demee dafa dédicacé àddunaam yëpp si sa dëkk joxe laay fam yëpp ci dëkkam bàyyi lépp lu mu waroon am lépp lu mu waroon def concentré ko ci dëkkam ba ñu teg ko ci yii problème war nañ ko delloo njukkal. war mm-hmm. nañ continuer la ñuy la ñuy defoon ci stade bi ça va neexoon na mais nañ ko continuer di def nañ continuer di ñaxtu bu ñu mënee dajale dix wala cinq personnes sax bu ñu mënee yëkkati ñaari bande wala ñu tëgg ay casserole ne Free Sonko wala Libéré Sonko nañ ko def loolu moom lu baax la quoi. Mm-hmm. beneen kii bi may wax man man euh, xam moom chaque fois maa la ko répété gis nga Sénégal bi bilaay naa feex la waa ji ñu jàpp ba léegi gis mu affaire am ci ci presse bu dul yéen nag leen wal fajri yooyu daal yéenay waxkatu dëggee mais ñi si des du ma dégg benn presse sénégalaise wax ci gain bi lu tax ñu téyewaat ko loolu ci ban loi la ko def Sénégal mhm. man ban article laa bëgg xam Sénégal ne nit ki mu nga ko jàpp mu yàgg changé waa décret bi ne noo kii lii la def nga jàppaat ko tëj ko mhm. loolu amul sens d'accord ci kaw Bassirou Diomaye Faye ngay wax waaw. Mm-hmm. mais man man comprendre ma nan nan lan la lan moom moom moom lan lan moo tax ñuy changer kii moom la lan la war a def mais man procureur ma xanaa man man daf ma jaax man procureur bi xanaa moom dafa am dafay dafa am ñu mu cible kenn du wax Macky Sall dara kenn du wax dara ñoom daal boo waxee rek gars yi dañ lay mm-hmm. te man musuma dégg mu wax ne turu Macky Sall ne léegi léegi lii benn góor yàlla dong nga ko fi def te mu wóolu boppam muy Ousmane Sonko te ragalu lu muy wax ragalu lu muy def. te da koy wax ku rafet ko xas du ko day wax li Macky Sall ne Macky li ngay def dëgg du yoon te am na droit bu nekkee Sénégal dañuy ne pays démocrate la bu nekkee dañu ne Sénégal pays teranga la loo neex bu waxuñu loo neex wax waa firi mais boo gisee dëgg wax da nga kaa wax parce que l'islam loolu wax dëgg boo ko gisee da nga koy wax jaru nga xëy nëbb nëbbal mm-hmm. ñu jóg euh, nan la ngay waxee ñee moom bu lex bu bu leen kenn toppatoo bu xam nan la ngay waxee seen groupe bee xam benn bo bokk ñàkk jom xam lañ leen di wax ñooñ moom bu leen kenn di déglu ñooñu moom bu boo leen di déglu sax da ngay am problème ak métti bopp lenn daal laay wax ngir yàlla ko jëm leen foo gis ngeen xool ci Ousmane Sonko nekk. Mm-hmm. xool ci lan la lan la président bi di def ñu xool nan lañ ko mën a def ba génne ko. d'accord Pape. xam naa am yendu jàmm saa Touba daal. ngir yàlla manqué man na man maay fan sam numéro un man ma xam naa bu mu ñëwee Sénégal man dinaa dem ba Touba ziar. in incha allah incha allah saa Touba. nit ku baax macha allah jaajëf Pape nga nuyu ñu waa Amérique yépp ñu ngi lay jaajëfal bu bu bu baax a baax. 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 si numéro yooyu ngeen daal di ngir daal di a bokk ci li nga xamante ni ah, mooy waxtaan bi ngeen wax seen xalaat ban jàngat ngeen am ci li ñuy daal di waxtaane way leen di aimer partager li nga xamante ni mooy live bi voilà ah, bu fekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi ah, Mansour ñu jël ko salaamaaleykum allo. maaleykum salaam mbokk mi ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax tur beeg fooy wootee. Kër Masar laay wootee. Canada. Abdoulaye ah, Kër Masar Kër ah, ok d' accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ani waa Kër Masar. waaw ñu ngi ciy jàmm. alhamdulilah yow rek la déglu mbokk mi. waaw man nag lii laa bëgg a indi précision si lii nii mooy affaire candidature. Mhm. Sonko. Mm damaa bëgg lancer benn message patriote yi mooy ñu bàyyi di seen bopp si yeneen candidat yeeg noonu parce que Ousmane Sonko lii nii yëpp mu def lu mu sacrifier boppam ak lii nii yëpp c'est pas pour après mu ñëw ñu am beneen plan B jël kooku def ko candidat ñu Ousmane Sonko mooy suñu candidat wax nañ ko ba sonn. d'accord. loolu laa bëgg patriote yi xam. Mhm. te bàyyi yeneen candidat waa Benno Tasaare Yaakaar xaw ma lan ñooñu amuñ seen jot. lan mm-hmm. leen bàyyi ñu def seen affaire ñun lu ñuy wax nii nii ñun bu ñu nekkee di wax ñun ñoo leen di may popularité sax waaye bu ñu waxul si ñoom kenn du leen. Mm-hmm. Ousmane Sonko lii ñu ko teg ñëpp xam ne ni di yoon injustice bii ñu ko teg ñëpp xam ne ni di yoon lu mett lañ ko teg te yeneen yëpp ñu ko topp yeneen di soi-disant opposants yi ñëpp xam ne ni di ay opposants mm-hmm. gisoo heure bi ñoom ñëpp a noppi waaye buñ foogee ne di dinañ fi defee seen même Ousmane Sonko bu génnoon sax ñoom seen meeting duñ si dal lu ñuy def stade yi génnoon noonu la leen nar a def kenn fi def meeting ci jàmm ñoom mënuñoo def seen trahison mu mag bi yàq liste mbéeg yooyu noonu ñoom Khalifa Sall ñoom baat Bart Bart mënuñ fi def loolu yëpp ba pare bëgg ñëw am jàmm def seen meeting normalement loolu moom du fi amee. d'accord. Karim Wade moom moom kenn waxtu ko moom moom man gëmmoo sax dina fi ñëw moom moom moom kenn nañ ko bàyyi foofu rek. Mm-hmm. man moom sama leeral si loolu laa ko bind te wax loolu laa ko bëggoon loolu rek laa bëggoon nii te ma wax patriote yi ma waxaat la ñu focus focus sur Ousmane Sonko te bàyyi ay plan B ak C Ousmane Sonko mooy suñu candidat A ba Z fee mu nekk hôpital jàmm rek la fay am incha allah te dina fa jóge ci lu yàggul daal merci beaucoup merci beaucoup mbokk bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax nga nuyu ñu waa Kër Massar yëpp moom message bi muy jàllale mooy que bàyyi. patriote yi nañu bàyyi di focus ci ay plan kii ba B ñoom nee nañ euh, Macky euh, président Ousmane Sonko mooy seen candidat mooy seen plan A ba Z donc euh, moom mu ngi ja mi ngi sàkku ci patriote yi ñu génne plan B ci seen xel voilà 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 si numéro yooyu ngeen daal di woote su ko defee ngeen daal di mën a bokk ci waxtaan bi la waxtaan ne tey bokk na ci remaniement bi nga xamante ni ay weer képp moo ko fi dese mu ne nag dina daal di tàbb beneen gouvernement bu yees ngir rek ñu daal di koy gunge mu jeexal mandaawam ah, ci jàmm ak salaam waaye fexe tamit ba gën a ñoŋal réew mi beneen ponk bi ñuy waxtaanee bokk na ci Karima Meïssa Wade doom ci Abdoulaye Wade bi nga xamante xamante ne moo nekk candidat PDS waaye mu mel ni daal candidat fantôme la comme ni ko journaux yi di di waxee ndax nag boobaak léegi waa PDS ñi ngi xam le ni mooy seenu candidat di xam le ni daal Karim Meïssa Wade dina daal di ñibbisi ah, ci réew mi boobaak léegi nag kenn gisul Karim mu dugg si si réew mi te ku ne xam na ni nag li des ci élection yi bareetul donc lan moo waral Karim Wade mënagul ah, dugg si si réew mi ba bi nga xamante ni tamit dinañ Ndour mi nga xamante ni daal ma nga xam leen ni ginnaaw ba mu jugee ca coalition car waaye tamit euh, tekki ay nombal tànk maanaam ministre bañ ko faloon mu dindi ko mi ngi daal xam ne ni daal fii ak ay fan yu néew dina génne jàkkaarloo ak leen intention yi mu am wala yi mu nara amal ci réew mi bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci leen bi Mansour ñu daal di koy euh, teewlu salaamaaleykum. waaleykum. salaam allah mbokk mi euh, Serigne euh, Moustapha Bassirou Massou Bassirou Moustapha <laughs> Massou dimbali ma ci tur xam sama sët bi nag. damay Mohamed <laughs> <laughs> may lay ziar bu baax a baax. Mohamed Bassir ni ma koy ni nga koy waxee ko sa yaa ko man maa ngi lay ziar naka waa Gambie ñëpp ngi si jàmm. <laughs> wallaay maam yow mën nga am sët boo xam ne yow xamuloo turu sët. billaay du yoon du yoon du yoon loolu moom du yoon. nuyu naa la maam di la ziar di la ndokkeel di jaajëfal euh, ñu nekk ci régie bi ñoom ñëpp. ak mm-hmm. mboolem ñi nga xam ne ñu ngi liggéey foofu ci 2A TV. macha mm-hmm. allah ñu ngi lay fay ñoom ñëpp. waaw man daal maa yow nag man maam man yow laa bëgg sax nga ñaanle ma. Mm-hmm. ñu ñaanal suma turandoo suma tooma Mouhamadul Bachir euh, Bachir Diomaye Faye nañ ko waaye waaye nañ góor gii boo ko xoolee rek boo xoolee feesam bi boo xoolee ni mel fees bi mooy kanamam rek dangay xam ne du ñetti fitna. Mm-hmm. li may wax maa ngi ko yóbbante képp ko fexe ba ma xam jàll jot message message bii may joxe. Euh, président Alaaji Macky Sall jot ko kilifa yi xam euh, ni euh, li nga xam ne wax dëgg yàlla lu ñëpp gis la lu ñëpp xam la te it ñu war ko bàyyi xel ci ñaar a ngi nii. bu dara mhm. doxaan seen diggante sax dañ daan moytu wante kenn bañ a merloo moroomam wala jooyloo moroomam walla méttital moromam wala gaañ moroomam muy diggante ñaari gi xeet a ngi nii muy diggante séeréer ak pulaar. wallahi wallahi maa ngi koy wax ma xam ma xam bàyyi sa xel bi loo nàccal Bachir ren nga ko nàccal balaa déwén ci waxtu yi ba euh, ma xam boo ko gisul nga xam ne kon li ñuy wax ci diggante pël ak séeréer amut maa la ko wax mm-hmm. incha allah la ca topp mooy alaaj Macky Sall na bàyyi xelam li jeex na ba pare gis nga maanaam décret yi léeg ma ay euh, dafa am caaxaan-caaxaan yoo xam ne soo ji su la yàlla jiitalee ba nga dem ba kii bu fekkee ne du yow sax ña la wër buñ la ci bëggee dugal yaa leen war wax na leen ma ne lu ñu rafetal ba agsi fi ñoo jeexale lu ñaaw bokkatu ci mm-hmm. man li ma gëm li ma gëm laa wax te loolu la li ñoo foog ne ci politique la bokk te du politique loolu la soxor la kañaan la bon la sew la mooy ki ngay yaakaarloo ci fiil bi ci pénc mi maanaam ki nga xam ne yéen a nekk ci eh, ci ci ci ci fil bi fil bi mooy ci maanaam yéen a jàkkaarloo ki nga xam ne opposition la ngeen jàkkaarloo mu nga am yow lu la yàlla dénk am lu mu bëgg maanaam fii nit ki toog am ku soxla ne moom itam bokk na ci ñi ko war a laaj ma dégg ne dafa jaadu dafa dagan dafa war a am lépp lu kooku mën ci pexe moo xam ne du lalu ko sax mu ne daal nuñ ko mën a fexele rek ba faagaagal ko lu loola ab galgal lañ koy tuddee ndëgg sa lañ ko tuddee dama ne képp ku teg bakkanam ci lii. Mhm. kon xamul xaqiqatan lan politique xamu ko noonu noonu demeewu noonu ah te xam naa rajo Macky Sall sax war na ko xam waaye ñi ci ñi ci ñiy woote ñenn ñi alhamdulilah yéen seen sit bi la am na solo yeneen sit yi waaye dangay dégg ko wootee nga wóor ko ne li muy wax ne naa fekk bu taxaw di wax la wax dara du ci dëgg. Mhm. ndax lu dëgg mooy dëgg yàlla gii ma wax la dara maam jaara ñun ñëpp. ku nekk ci àdduna amul kenn ñay jàng naan yéen xamu leen naka la xamu leen droit wala jàngu leen nangam jaara bu sa dëgg kenn mhm. rek la mën a ne addo ah, asir mii ñu ñii ña ñi ñiy fàttali suñ bopp tey ne moo fi nekkoon na ñun fu dara xew maam Abdou taxaw wax lay la nga xam ne mooy la ca yàlla wax la ci rasulullah lay wax la cay mhm. dëgg ma ne maam Abdou Abdou mooma mhm. daan nañu wax ne dëgg dëgg rek la tudd yàlla yàlla la tudd nañ bàyyi jaaxaan yi nañ bàyyi caaxaan yi bàyyi tooñ yi nañ bàyyi tappale yi te jaamu ji yàlla te xam ne fii àdduna la ngeen baal màq sësët bi ci kam bi Momadou Bachir salaamaaleykum macha allah macha allah ñu ngi lay euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sama sët boobu lay di la wax que ni merci beaucoup jàngat am na solo euh, voilà 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Binta Sarr Mame Diarra pourquoi je pas vous joindre dans l'émission ah Binta da insister rek peut réseau bi moo tax mooy saturé donc euh, il faut euh, ngay ngay ngay continuer di woote comme ça di am chance ngir mën a participer ci euh, bi la émission 88 628 73 08 99 77 914 64 93 bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi Massoul ñu jël ko salaamaaleykum. maa ngi lay ziar soxna si tur bi ak fooy wootee. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah ci jàmm bu baax baax yow nag yaa ci jàmm. maa si maa ngi sant yàlla di bu léegi maa ngi leen di woo Binta Sarr yaa ma envoyé sànq message bi que ni danga yaa ngi bëgg a dugg mais mënuloo dugg. waaw kay man la man la nag depuis loolu alhamdulilah comme comme comme dugg nga ñu ngi jéggalu parfois réseau bi mooy xaw a saturé rek nekk sa fan rek mhm, dëgg que ni nga koy defee moom ma neex mhm. kontaan ci rek jaajëf merci sa Touba merci beaucoup bind Oscar mhm. bu nekk fii Maroc ngi leen macha allah Binta nekk euh, Maroc ak euh, tis bi daal ci seen kaw waa instant moom instant yi dal na ñu ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla. macha allah yal yàlla xeppale. Mhm. amiin amiin amiin ñu nekk Sénégal. d'accord euh, bi débat li ñuy waxtaanee tey Binta bokk na ci leaderu Pastef bi nga xamante ni daanaka lópp fukki fan ngi ni kenn amul baax euh, ci moom ginnaaw ba ñu xam leen ni daal dakkal na xiifal bi mu doon amal euh, voilà bañ ne état wambul waaye boobaak léegi daal na amul ay nouvelle euh, ci moom kii di président ma Sall ak gouvernement am président mi ngi xam ne ni dina amal ab euh, euh, ma maanaam dina amal ab coppite bi yees jëmale ci gouvernement bi mi ngi daal di xam ne ni daal di ko desee ci weer yi dina tabaat beneen gouvernement boo xamante ni moo koy gunge ngir mu daal di jeexal ci jàmm ci présidentielle 2024 yi ñu daal di dëtmal ba tey mu mel ni lu jëm ci wàllum candidat yi kii di Karim Wade PDS bi nga xamante ni ñoom jàpp nañ ni Karim mooy nekk seenu candidat waaye ba tey Karim Wade mënu guñu ko Sénégal mu mel ni di des ci élection yu bareetul waaye Karim daal ba tey moom dafa mel ni ku am jafe-jafe ngir dugg si ci réew mi euh, kii di Youssou Ndour mi nga xam ne daal fekk ay fan yi néew dina génn jàkkaarloog askan bi ngir wax intention yi nga xamante ni moom la am jamono ji ci réew mi ban jàngat nga ci am. ci dara. d'accord moom a ba waxee chaque jour chaque jour dañuy dégg ne mu ngi ñëw mu ngi ñëw mu ngi ñëw chaque jour ma yaakaar ne léegi ñu dem jëli ko aéroport boobu ba léegi mu ngi def un an ba. Mhm. un an plus que un an sax chaque jour mu ne mu ngi ñëw mu ngi ñëw te gisuñu ko kon kooku moom ah, nuñ ci wax ci moom dara man foofu moom du ma si wax dara. Mhm. Ah, Youssou Ndour bëggoon naa ko dama ko doon seetaan affaire yooyu noonu waaye affaire bi bu mu keew ba léegi waxu ci ngaangu ci waxu ci dara. moo tax mm, dina ko seetaan nii tuuti rek un coup d'œil rek bu ma ko gisee ci kii bi ci waaye. gondul ma mm-hmm. daal man daal ci affaire sonk baa bëgg a wax. d'accord yow rek la ñuy dégloo. li nga wax mm-hmm. waaw li nga wax foofu dëgg la parce que depuis loolu avocat yi ñu ngi doon wax yéen journalistes yi ñu ngi doon wax. Mm-hmm. léegi bu bu ñu déggee mooy commencé bàyyi grève de la faim bi di lekk boobu ba léegi amatuñu nouvelle ci moom loolu moom dëgg la foofu booy boobu moom. Ah, neex na ma trop. waaw. léegi yéen yi nekk journaliste yi ak avocat yi war nañoo génnaat ñëw wax ñu Ousmane Sonko lii ak lii ak laala suñu xel yi mun a daal parce que ñun ñooy patriote yi. Mhm. waaw su ko defee dañuy neex trop trop trop bu ñu nee tekk tekkaaral xam nga ñun duñu xam ci ndax ci nen lañu toog wala ci lan lañu toog. effectivement. Mhm. waaw waaw il faut ñu avocat yi génn wax wala journaliste yi jéem a xuus. jàll. Mhm. ñëw indi ñu information yi loolu la ñuy xaar ci yéen. incha allah. waaw. maa ngi koy mhm. ñaanal Ousmane Sonko itam lal bu mu tëj ci hôpital yàlla fogg boppam mu jóg. amiin moom la soxla. Mhm. loolu lañuy ñuy sàkku. mu jóg parce que affaire bi ñun dañoo bugg système bu bees bugg ci ñu système bi fi nekk. Mhm. bu bees la ñu te ñun am nañ ci yaakaar moom bu ñëwee lu ñuy jooy ak lu ñuy kii su ci rongo daal bu ñëwee moom lañ moom moo koy fomp daal. xam nga séeréer man bu déggul si wolof rek waaye. <laughs> macha allah euh, léegi nga dégg léegi nga mokkee incha allah. waaw waaw léegi ma léegi ma mokkaat. <laughs> leer na ba pare sax daal mooy suñu waaw Ousmane loolu la ñuy xaar léegi ma ñëw nag ci xam ne sama séeréer bi Bassirou Diomaye Faye. Mhm. woy bi chaque jour dama koy teg ci sama téléphone bi sama statut moom laa koy def sama profit moom laa koy def. parce man damaa nekk séeréer te laay doon xoolal googu séeréer dër séeréer mooy daw ci sa pay mm-hmm. nañ ko bàyyi nañ ko génne ñun ñu ngi toog fan yi di yaakaar ne Bassirou Diomaye fay dañ koy génne ma jékki-jékki xaw ma démb xaw ma barki démb ñu ne lu ñu tegoon Ousmane Sonko yëpp moom lañ ko tegaat dañ ko war a mm-hmm. juger chambre lu mu def bu ñu koy juger chambre criminelle moom lu mu def man loolu laay posé nguur gi Diomaye Bassirou Diomaye fay lu muy def ba luñ ko teg ñu ko koy teg te moom deful dara dégg naa lu ñu teg Ousmane Sonko moom lañ ko teg lu sauf portable kii sa ci portable. Mm-hmm. nañu bàyyi waaye caaxaan bi ñu nekkee te ñu xoolal ñun avancement la ñu bëgg ci Sénégal loolu lañu ñu bëgg Bassirou Diomaye fay nañ koo bàyyi mu génn ci kaso bi dem def liggéey lu mu doon def parce que moom moom encore te nañ ci yaakaar ci moom parce que lu muy def xam na ko mun na ko xale bu góor bu yaru la. lu muy def xam nga ko nañ ko bàyyi tout tranquille mu génne dem ci njabootam continuer du mu doon def liggéey bu mu doon def ñoom loolu la ñuy xaar ci nguur gi ñoom dañoo jeexal comme dañoo jeexal nañu bàyyi Bassirou Diomaye Faye mu génn immédiatement ñun loolu la ñu soxla ci ñun séeréer ñun loolu la ñu bëgg ku mhm. yaru la ku mhm. maandu la boo xoolee Walfadjri mu doon toog ak yeneen télé yi mu toog toog def émission xoolal ñëpp koy ñeey parce que dafa yaru mhm. waaye comme yaru bu ñu gis ci moom ak dafa intelligent encore ak xam-xam bu mu yor ak politique bu loolu moo tax ñu koy teg ay loo xam ne Bassirou Diomaye Faye lii ak laa man loolu laay ñaan président Macky Sall xool bàyyi Bassirou Diomaye Faye mu dem continuer liggéeyam bi parce que xam ne bu ñu kiwee Bassirou Diomaye kii Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay mun na ñëw nekk ci palaasam parce que xam na liggéey bi bu baax moo tax ñu jël yooyu yëpp teg ko ci ndoyam nee ne lii ak laa man loolu laay ñaan ñu ñu ñu jóg Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye génn ci lu ñu nekk nii Macky président Macky Sall maa ci mu génn dafa am njaboot d'accord ñëpp a ko ñee parce que ku yaru mhm. d'accord message bi am na solo ñu lay euh, ñu lay am jaara ci kanam yàlla soo mënoon muy def mhm. na ko génne Mhm. deful fii dara loo xam ne am na ñoo xam ne ju nguuru Macky Sall def nañu lu ëpp Bassirou Diomaye Faye lu mu def ñu ngi di dox kenn jàpp leen mu jël xale bi dugal ko nii ci kaso bi nekk ñu ngi ñaan barke démb suba léegi Bassirou Diomaye génn ñu ne ko dafa am lu gën a kii dañ ko war a gis sax barke bi ne man xol laay waxee na ñu génn doomu jàmboro bi boo ko seet yëpp maa ngi ñaan ngeen jóg taxaw ñu ñaan julli ñaan def lu ñu mën Bassirou Diomaye Faye génn ci kaso bi kon loolu laay ñaan maam Diarra merci kontaan naa xol laay waxee sama xol. jaajëf jaajëf merci beaucoup. merci beaucoup Binta Sarr yal na yàlla nagu ñaan ba képp ki nga xamante ne jamono ji caabi daf la féete ginnaaw ci lu jëm ci wàllum politique comme ni koy waxee yàlla euh, teggil la nattu bi nañu bàyyi nag doomu jàmbur yi ñu ñibbi ñu ñibbi képp koo xamante dañ la jàpp te politique rek lal ko ngan la waaye nañ la bàyyi nga nga ñibbi sa kër àdduna bi jeex na ba pare ku ci mel ni maire Amidia ah kooku man à ah, chaque fois damay toog di xalaat ay njabootam ci mag bu toll moom nga teg ko nga teg ko coono boobu teg ko mitit boobu ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp képp koo xamante nii rek ah, jàpp nañu ah, détenu politique nga naam ñoom sax nee nañ détenu politique amul ci réew mi waaye nag dina fàng kenn dëgg ne du dëgg donc ñu ngi leen di ñaanal di sàkkuwaat ci ñoom ñu bàyyi leen ñu delluwaat ci seeni kër kaso kenn neexul te dama jàpp ni ku ko yéene nit ki rek da ngaa xamul la fa nekk donc yal na leen yàlla teggal coono bi yal na leen yàlla delloowaat ci seen i ay njaboot ñu wëyal uh, seen ubli Mansour am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaam